xam na membre la bu vision socialiste vision socialiste Aïssatou Diagne moo ñëw représenté ko dina wax ni mu wayé euh dama bëgg a sant kii Pape Sall nommé sànq muy euh, la présidente Abigay Abigay ku ne xamné na ne mooy présidente coordination waaye nekk suma présidente section abi tey li nga xamante ne nii mooy làcc wi Ndiassé di bay ci jigéenu Thiès yi muy di leen jox ay financement Ndiassé nekku fi waaye Abigéey moo koy doxal di ko ko taxawal ci taxawit woo xamante ne nii taxawit wu mucc ayib la te nit bu bëggee jiite ñaari critère da cee am muy jub ak maandu te ñaari yooyu ci jigéen jigéenu àdduna Abigéey fësal na ñaari qualité yooyu loolu moo tax mu nekk la lion du parti socialiste à Thiès nekk la lionne de notre formation kon sans tarder dama joxaat Pape pour mu continuer programme bi euh, ñu doxal balaa muy gën a pour qui il a une estime partagée il me l'a dit dans le secret de son bureau mais je voudrais aussi féliciter les camarades du Parti socialiste ici à Thiès, qui ont tenu à parler de l'histoire de leur formation politique. Car cette histoire-là semble méconnue par les nouvelles générations. Et les anciennes générations ne gardent en mémoire que certains, certains aspects de la vie de notre parti. Il est important que des militants du Parti socialiste se réunissent de temps en temps pour revisiter leur histoire. Il est important aussi que des partis alliés ou partis membres de l'activité politique, en tout cas partisans de l'activité politique au Sénégal, essaient de regarder un peu l'histoire d'un parti comme le Parti Socialiste, dont, qui se confond avec celle du Sénégal. Comme vous le savez, Comme vous le savez, mes chers amis, l'histoire du Parti socialiste ressemble à quelques 50 ou plus de 50 années d'histoire politique du Sénégal. En effet, sous la direction d'hommes politique d'exception que furent les présidents Lamine Gueye, Léopold Sédar Senghor, puis Abdou Diouf, le Parti socialiste a eu le mérite a décidé au moment où il se sent un peu en retrait et que le soir descend, de par les cheveux grisonnants que nous avons tous, de ne pas tuer ce souffle, ce souffle qui incarne des lendemains meilleurs, pour, non seulement pour le parti, mais pour la nation sénégalaise. Et c'est en cela que Ndiassé est un grand homme. Moustapha aussi, dimbalay sant moi mul mooy Yonui, wi Yonui, wi xale la wi mouk mouk muk muk muk muk muk wala yalla dina ko ubbil waye xale bo xamné nangul topp mag day tañax tañay rek parce que mak mo xam li fi xew c'est pour cela on dit en français si vieillesse pouvait aussi oh, jeunesse savait ça veut dire que l'expérience de Ndiassé servira à Moustapha s'il veut bien apprendre auprès de Ndiassé et il est sur la très bonne voie kon guddal baña a wax bi motax ma ngi gërem ñep yeen ñi fi ñew aussi kenn amul sen fay parce que su leen non ngeen tok ci kër waye ñew ñëw ngeen pour gunge sen dom ci li muy def yal a joué sa partition dans les combats victorieux du parti à travers la participation responsable dont le renouveau a été théorisé et mis en pratique par le président Majadjob, Diop, un géant du syndicalisme en Afrique et dans le monde. Le Parti socialiste est l'unique formation politique au Sénégal qui réunit régulièrement ses instances, les renouvelle et tient ses congrès dans des délais raisonnables. Tous les ans, il organise son université d'été et rend hommage au président Senghor à travers la journée du souvenir. Il est bien implanté sur l'ensemble du territoire national et bien représenté dans la diaspora. Ses leaders, leaders principaux leaders ont accédé au pouvoir dans un contexte difficile où seul Dakar et Saint-Louis disposaient d'infrastructures à la limite acceptable. Nous reconnaissons, les anciens reconnaissent, que les populations de tous les âges et de tous les départements du Sénégal Devait se rendre dans ces deux villes, Dakar et Saint-Louis, pour étudier ou se soigner. Remercier celui qui nous a permis de venir ici aujourd'hui introduire ce thème, M. Moustapha Diaw, qui est un ami et un frère. À travers lui, tout le Parti Socialiste, en commençant par l'éminent professeur Louis Thomas VI. Je voudrais aussi saluer, et je devrais commencer par là, le premier magistrat de la ville, mon ami, grand frère et maire Tal Silla, maire de la ville de Thiès, à qui nous voulons respect et considération pour son engagement pour cette ville où nous chérissons tant. Je voudrais aussi saluer M. Ndiasse Ning, le professeur Louis Thomas, je l'éminent intellectuel Ibrofal qui a fait tout à l'heure une très bonne intervention. Je pense que je vais être euh, un peu étreint par l'émotion en parlant après lui parce que je pense qu'il a tout dit. Mais aussi saluer Madame Aïssa Diagne qui est la coordonnatrice de Vision Socialiste, Pape Amadou Sall qui est le modérateur, Abigail président de la deuxième coordination. Mais je voudrais aussi saluer les responsables de Benno Bokk Yaakaar particulièrement que boo gis les responsables de l'Alliance pour la République qu'on a énuméré tout à l'heure au niveau de la délégation mais souhaiter à nos parents chrétiens un bon carême parce que nous sommes dans le mois de carême et je pense que c'est normal comme au Sénégal on a une très bonne entente entre musulmans et chrétiens de souhaiter un très bon carême. Je voudrais juste commencer par une petite anecdote dire que c'est important de le dire parce que quand on organise une conférence pour le Parti Socialiste au profit de Benoît Bokayaka, on dit qu'il organise, on parle de Tafadio. Moi, personnellement, je dirais que c'est normal. Pourquoi je le dis En 1997, on venait d'avoir notre bac et on était à l'université, chambre 33M, et un de mes amis vient me voir. C'était Moustapha Diop. Il me dit, cher ami, j'ai organisé un mouvement qui s'appelle EMSA, je pense au mouvement de soutien à l'action de talent à l'époque. Et bon, nous tous, nous savions qu'à l'époque, les élèves étudiants étaient un peu réfractaires au Parti Socialiste. Bon, je lui ai dit, Moustapha, c'est bien, mais ce qui va être difficile pour moi, c'est d'entrer à la maison du prince. Parce que c'était pour nous, les jeunes à l'époque, comme une maison hantée, ça il faut le dire. Et il y avait Papa que Papa Bakary qui avait dirigé cette manifestation. Donc en 97, la première personne qui a fait que je suis entré à la maison du Parti Socialiste, c'était Moussa Diop. Et on n'était pas venu dans du PS, mais c'est juste pour montrer que les liens vont au-delà des relations politiques. Il faudrait que nous, la jeune génération, que travaillions à préserver cela. C'est pourquoi je remercie Papa Moussal qui a toujours été un artisan pour ça. Et pour sa loyauté. Parce que quand même, c'était pas évident d'avoir été au Parti Socialiste avant 2000 et d'y rester jusqu'à présent. Donc, Papa Moussal, nous vous remercions. Donc, pour introduire le thème coalition Benda yakar bilan d'une coalition, comme on l'a dit, c'est vrai que ça va être difficile, mais on va juste essayer de résumer. Et vous me permettrez souvent de m'exprimer en Wolof pour que personne, pour que nos camarades puissent comprendre exactement la quintessence de ce que nous voulons dire. Parce que quand on parle de coalition, d'abord, coalition, il faut peut-être parler de la coalition. Quand on parle de coalition, une coalition politique est l'union entre au moins deux partis qui partagent certaines idées en vue de réaliser des actions communes, notamment des candidatures aux élections. Les coalitions visent à présenter un programme commun visant à gouverner un pays, une région, bon, aujourd'hui un département, on peut le dire, une administrative en général. C'est-à-dire coalition mooy ay parti politique yo xamante gis nañ ne ñoo bokk gis-gis ñu ñëw des dañuy dem élection une coalition électorale nag lañ koy parce que une coalition dëgg un, dinañ am programme pour diriger ben euh, entité administrative wala réew comme ni ko coalition benn bokkaay di jotee mais lolu dafa am lo xamné ni moy mooy ci slide ci slide li moy doon programme ku nek xamna na à l'époque coalition Benno Bokk Yaakaar dafa am ci yu bari yu mu jóge dafa am Benno ak Tanor Benno Siggil Sénégal mu am coalition Macky 2012 am yenen coalition yo xamante ni. mbok iki aku yo ngi di gërëm Moustapha Diaw mi nga ah sabab bi suñu borom ci moom la ko jaarale Euh, di jaarale ci moom ngërëm goo xam ne moom ñi mu bokkal parti socialiste yépp muy ñi ci nekk Thiès muy ñi jóge feneen ñëw fi ñoom ñoo ko bokk ah di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon waxtaan wi muy sama mbokkum Pikine mii di Ibrahima Fall te def waxtaan bu am solo ci loo xam ne ci wàllu taarix indil nañu lu bari waaye it di gërëm sama xarit sama rak di le président Abdou Mbow xam nga contexte yu mel nii soo waxee ci ñi xamul dañuy def ne danga koy wax rek pour rafetal waaye moom xam na ni suñu diggante yàgg na te parti mosu koo wàññi politique mosu koo wàññi ah, di nuyu it soxna yu baax yi nga xam ne ñoom lañu bokkal ah taabal ji moo xam ci wàllu vision socialiste moo xam ah soxna abi mii nga xam ne ñoo bokk conseil de ville waaye mu am tamit lu muy représenté ci parti socialiste ci Thiès euh, soxna Ndey Tické maa moom ñoo bokk mam ndax ñun ñoo bokk Albouri euh, di nuyu ñi ñëw ci salle bi yépp moo xam waa Benno Bokk Yaakaar moo xam ñi nga xam ne ay militant ay militantu part socialiste lañu moo xam ñi nga xam dañ fi teew parce que ay invité lañu xam naa ni exercice bu jafe la boo jëlee kàddu boo jaarul ci nit ñi mu metti soo ko defee mu jël temps hmm. waaye nag ku ne dina comprendre euh, xam nga dama daan wax Abdou saa yu ñu masaa datee ci jataay Je suis un camarade du parti Je euh, sais, man parce que le parti c'est la république du Sénégal euh, mu am nak ñu bari ñoo xamul ba taxna ci yabal télé ci internet ñuy wax ne Talla Sylla dafa dem APR man leen da ngeen maa xamul man je suis libre lu mu bëgg a def midi laa koy def taxaw promenade des Thiessois ne fii laa bëgg a jëm man parti bi ma créé woon sax dama cee bàyyi man parti bi nga xam maa ko créé jiite ko fukki at juróom sax damaa bàyyi maanaam maa bokkul parti waaye Sénégal parti Sénégal boobu parti république Sénégal boobu ma bokk contexte bu ñu toll la mu laaj loola lay def dañuy waxtaan bennoo dañuy waxtaan bennoo tey kii nga xamante ni mooy président Ousmane Tanor Dieng maa ngi leen di yóbbante nuyoo ci moom te jiite parti socialiste su ngeen demee dina leen xamal ni Benno maa ko créé ndax la ko créer maa ko dox ba mu am boobu muy Benno Siggil Sénégal nga xam ne tur bi ci boppam bañ koy génnee ci këru sama directrice de cabinet Catherine Gueye au point E lañ ko génnee daanañ fa daje booba dafa am luñ ca jublu woon mooy fexe ba ci local yi doon ñëw ak mode de scrutin bi doon am suñu bennoowee maanaam ñu nangu lu mel ni Dakar nangu yenn dëkk yu bari jamono boobu fekk na li xewoon ci biir PDS xew fa ba APR juddu te amagul récépissé at moomu ba ñuy dem ci local yooyu man maa doon président commité électoral national benn lu bëri lañ ca bëggoon xew ba wàññi doole régime bi fi nekkoon mais ba ñu demee 2012 bañ ca jëmee nit ñi di discuter ndax dañuy reconduire la Benno ou dañuy def tasaaroo au premier tour jamono boobu. le 5 mai 2010 man maa dem parti socialiste seeti président Ousmane Tanor Dieng le 6 mai ma dem seeti président Moustapha Niasse ku ci nekk ma am lu ma wax ak yow waaye ba ma ca jógee dama dem seeti président Macky Sall këram wax ak moom tamit keroog ba nu toogee ma ne ko ñëwuma. ngir ne la bul nekk candidat parce que xam naa di nga nekk candidat et di nga ko nekk en dehors de Benno mais dama lay ñaan suñuy dem séminaire bu 6 juin 2010 bu féké benno dafa nara tas la koy tas bu ca bokk ndax so waree dem deuxième tour parce que deuxième tour dina am ma ko dina ci bokk lu wax li bëri wax ji bëri bëri ci candidature wad mané ne ko jappal ci sa xel né wad dina déposer candidature am qui sera validé, wa wad dina campagne té dina dem deuxième tour kon benn place la ñuy kon yow su fekkee ne yaa war a jël place boobu sans bennoo doo dem kon lay tas bennoo bu ci bokk kon ku neex a waxal la moom xam na ni ci point yu bari daaw ñu ci déggoo mais ay xarit lañu dañ naan toog di waxtaan mu ne ma bu ñu toogati fukki fante waxuñu Abdou mais xam na ni entre les deux tours ñii di ŋàññi bennoo man ba may. mu mel ni ki représenté Sénégal tey fii mooy l'honorable député président à l'Assemblée nationale Abdou Mbow ñoo ngi lay nuyu suñu jógee foofu nag dugg suñu parti parti socialiste tey ki ko fi représenté di suñu secrétaire général Ousmane Tanor Dieng notre camarade Louis Thomas Ciss moo ko fi toogal tey

commence par soi-même. Abi Gay, la présidente de la coordination deuxième de GES, te yàlla dogal ñu nekk ci bopp bi secrétaire général bi muy sunu jigéen yore jigéen ñi ak ñu lay nuyu wax nga Thomas ni sa chance mooy am Moussafa, voyez mooy am Abi bu ci waat desoon rek ma wattal

ñoo defandoo classement ak moom kon su ma rakk la ñu ngi lay jox sa waay yàgg nañ la dégg ñoo bokk ñun ñëpp dëkk côté Mbour 1 maa ngi lay nuyu di la jox sa waay yooyu tam. di nuyu nag euh, Benno Bokk Yaakaar di nuyu militant yi fi teew yëpp di nuyu militant socialiste yi fi teew yëpp di nuyu invité yi fi teew yëpp dañuy wax ni waykat bi moo ko wax. ku aye da ngay warul sa moomee dafa mel tay tey Moustapha mu aye du wax ci jaxasoo Benno Bokk yakar des voix plus autorisées que la mienne en ont déjà parlé du ñu wax ci parti socialiste xëy na dinañ ci mais des, des voix également beaucoup plus autorisées que, no, que, notre voix en ont déjà parlé mais ñu wax nag ci Ousmane euh, ci ci ci pas Moustapha je vous félicite gis nga lii yombul man nga luye chaise man nga luye bâche man nga luye table waaye mënoo luye monsieur le maire mënoo luye luye Thomas Cissé waxtu ma daal nag góor yi nga xamante ni kenn ku ne bàyyi na yitteem ñëw wuy si la mu mel ni bu fekkee luye war naa am ci yëg gi nga leen di yëg la waaye ci sa comportement lay doon loolu nga def fii ba ñëpp bàyyi seen njiite ñëw fekk si la c'est pour cela Moustapha je vous dañu wax ni nit bu ñu nee baax la dañuy laaj ndax mbokk yaa ko waaw yéen mbokki Moustapha ngeen waaye maa ngi yaakaar ni maa leen gën a bokkal Moustapha Moustapha bokk nañu ñaari ñetti yoon Moustapha bokk nañ ci deret te dinaa leen wax li tax Moustapha bokk nañ ci parti socialiste te dinaa leen wax li tax waaye Moustapha bokk nañ ci mu coloré te dinaa leen wax di tax Moustapha dafa jóge France ñëw war a militer ànd ak si toog ñu seeti secrétaire Jean Ousmane Tanor mu ne dafa bëgg a dugg ci parti bi biir Thiès ñu ne ko seeti Ndiasse ñi ngi mu ñëw ci man booba xaw ma lu ma bokk ak mu ñëw wan ma yar bu mat sëkk mu ñëw wan ma engagement bu mu ñëw wal ma kóoluteef bu mat sëkk mu ñëw wal ma nangu bu mat sëkk loolu la ñu bokkee ci biir parti socialiste mu ñëw dugg sama coordination yor fa section ci yaatal bu ko abi yaatal mu jël communication ba tey jii loolu du def du ma yëgu bi mu sumbee lii dama ko ni yaa koy def waaye cordination bi moo koy parrainé loolu moo waral tey waroon nañu voyager génn réew mi mais sama ngor mayu ma nag may dem te Moustapha Lyem fekk wu ma ko pour cela bokk lañ ma euh, dinaa guddal tuuti nit ñi yàkkamti nañu waaye gis nga li nga war a wax fa nga ko war a waxee boo ko fa waxul bu yàq foofu weesoo lu yàqu yàqu yàqu kon sama bokk moom ci parti socialiste foofu la génne li ñu bokkee nag ci wàllu colère dafa ñëw mu ma suma bàyyi la dafa ñëw mu ni ma suma ndijaay nga dafa ñëw mu ni ma suma kilifa nga maa ngi jàpp ni ginnaaw wéy juróom wu góor wi ko jur ak wu jigéen maa ngi jàpp ne ginnaaw Serigne Touba bi muy wooyee Cheikhul Khadim maa ngi jàpp ne ginnaaw Ousmane Tanor Dieng man la gën a jox cër ku mu doon ci biir Thiès loolu laa jàpp man. man damaa gëm nag waaye jàpp naa ko. loolu nag nit bu la ko defalee ay bokkam teew ay xaritam teew ay wóllëreem teew am ñeneen finalement suma signature la may wax barke Cheikh Mouhamed parce que sëñ Tuubaa ko moom laa yaakaar waaye euh, nag ci ci àdduna ci àdduna su ma doon wax ne dama fi am wasila Ousmane Tawa Diallo suma wasila ci wax alors mam fama si di doomu mam ahmed si dekkoon doomu alhaji malik mu des si soloni pendant la guerre mondiale dëkkoon ersa moom musa wax ñaan ba de ma moustapha nit nu mo mel ba mun a wax ci mbolo ñu koy déglu lu ko gërëm ay bokkam waye lu mu bëggee na ko ne ay xaritam waye tay big na xam ne suma déjà naa parce que ñii toog fii ñoo ma mag naam defe naa mën ak Abdou fi gën a féete ndaw juróom juróomi weer lañ ma andee mën ak moom bëgg naa loolu ndax ñii fi nekk dañoo bokk lu ñu bëgg muy servir le Sénégal muy servir notre peuple muy servir Thiès ji ñu nekk tey waaw kon ñooñu suñu xarit lañ ci wax àdduna kon loolu tax na bëgg naa waaye toog naa parce que samay bopp depuis 15 heures on est là kenn wanewul si ñu kenn wanewul si ñu fatigué kenn wanewul si yàgg na maa ngi dem. loolu yi nag li nga waral ñoom ñoo baax ma bokk am ay mbokk yu baax am ay dëkkandoo yu baax am ay xarit yu baax ci. mbokk yooyu damay jël qualité bi teg ko ci suma maire comité muy maire Maguette Diop di suma bàjjan di suma baay di suma lépp waaye ci jataay suma xarit Ndeye waaw waxtaan weeru waay une dame bi mu mu ngi wone man-manam ak dayoo ba président Macky Sall am na mu ngi koy doon di ko wax keroog pour donc yokk cere yokk ñeer waaye boobu président yokk na ko defe naa ne mu ngi koo xamante ne nii suma doomu nday mën naa wax ne lu ma def

topp ci parti bi de Abdou de Senghor de Abdou Diouf jusqu'à Ousmane Tanor. alors alaaji Modou Lo Thiès. ku Thiès war a ràññee la ku Thiès war a joxoñ la. et il est constaté et quand on est constaté en politique on est contesté mais pas beaucoup de courage. très bien. déjà. félicitations. on a dit ça. li li li waral daje bi tey. Euh, dinaa jégalu ñiy waxoon ne dañuy jël kàddu ne wax dañoo bëgg a wax ci man muy muy muy suma bàyyi Pape Thiam muy suma xarit suma mag laaj daaw la lool suma bàjjen Maguette Diop ak ñeneen am ngor fekk si ma war naa leen dolloo ngor boobu ba respecté seeni obligation yi ñu am ba du leen di gën a ak abdu suma xarit la nam waaye nag yàlla moo ko jox cër bi mu nekk mu nekk l'étoile d'une génération suma mu doon man suma sañ keneen su sañoon mu doon moom waaye yàlla ci moom la ko def bu ko namee ci man dina ko def ko loolu ko ko waaw li waral daje bi tey Ousmane Tanor Dieng le 4 février dañoo daje jël carte du parti socialiste dañuy renouveler loo xamante ne ni mën nañoo wax ba Sénégal di Sénégal ba tey ba parti yi amee ba tey ba ci ñi nga xamante ne ni dina leen sànni xeer ñun ñoo fiy def à date échue ñu jënd ay carte jaay ay carte renouveler ci loolu nag lañ toll tey loolu moo tax ma woo samay mbokk su may xarit ak ñi nga xamante ne nii ku ci nekk muy mag parti bi ñi nga xamante ne yi ñooy génération yu njëkk yëpp Ndiassé dafa wax sànq wax bu am solo que góor bu ne ma fekk ma ko parti boo gone yi léegi xamuñu lan mooy parti socialiste boo gisee jataay bi ay mag ñoo fi waaye li ma bëggoon a wane ñi nga xamante ne ni am nañ 19 ans tey en 2019 ñu war a voté ba parti socialiste bi quitté le pouvoir ñoom fekkul woon lu ci bari fekkul woon ñu juddu wala ñu juddu woon xamuñu ndax kuy am. et ñooñu tey war nañ leen woon lan mooy parti socialiste que nous on a un parti qui est majeur un parti qui est excellent un parti formateur le parti qui a créé toutes les conditions pour aujourd'hui le Sénégal mon ngi tege ci aw il y a une semaine demain, suis ak sam benn xarit ñu a seeti président Abdou Diouf bu moom moo sax ñu dem toog je vous encourage à soutenir le président Macky Sall parce qu'il est en train de réussir ce que Seigneur voulait et moi je l'ai essayé et lui il est en train de réussir. Et Abdou Diouf, tout le monde sait que quel gënu état ak Abdou à 25 ans jusqu'à il est au cœur des institutions mondiales et au cœur du Sénégal aujourd'hui kon kooku su ne Macky Sall tege na yow yoon ñun ñi nekk au périphérie ak ñi nga xamante seen agenda bopp la ñooy ñooñu mënuñoo gën a xam état Abdou Diouf mënuñoo xam gën a xam suma leader bu baax bi l'homme d'état le plus accompli du Sénégal Ousmane Tanor Dieng Abdou Diouf Ousmane Tanor Moustapha Niass ak ñi leen kenn gënu mën a fëgg dënam ne ñii maa leen gën a xam Sénégal ñii maa leen gën a xam les Sénégal ñii maa leen ni Sénégal yi dox et loolu suñu ne Macky Sall moom ci yoonu baax bi Macky Sall moom ci baax bi li war Sénégalais yi mooy tey ah man sama parti laa wooteel ku bëgg a am comité ku bëgg a yore section maa ngi lay woo ngeen ñëw ñu jënd carte ñu yaatal parti socialiste jaase wax na ko ndox ndox pour ndox raxasin la woon waaye raxasin bu teeyee doo naan ndox te parce que saa kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di